أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki jullit yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci sunu téere boroom subhanahu wa taala ci kàttanu boroom bi ñuy jël tey ñaari aaya muy aaya 14 ak aaya 15 ñaar 15 ak 16 15 ak 16 ñaari aaya muy 15 ak 16 ñaar yi mbokk jullit yi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ñu ciy jàngal juróomi mbir bu ci njëkk nasaha allahu taala li ahlil kitaab bi daawatihim ila subuli salaami bi duxuli fi lislaam sunu borom subhanahu wa taala mi ngi laaye biir ñooñu ñuy woowee ahlul kitaab te mooy yahud ak nasaraan ndax ñoom kat danoo bëri lu ñuy wootewu ci ay kàddu yu ñuy wax ñoom ñooñu naan dañoo nekk ci yoonu islaam naan ñoom dañoo gëm yàlla ñoom ay jullit lën comme noo ngi wax loolu nag yàlla ne leen kon bu fekkee loolu dëgg la kon dugg leen ci lislaam benn yoon rek moo tax souvent doomu aadama day nekk ci mboy mboy ga di woote woo ne man kat mbir ma ñuy wax maa ko ne fekk ma nga càkk ginnaaw géej waxuma la sax waa ahlul kitaab mais ñun ci sunu bopp tey ñun ni ñuy dundee danañ dégg ay jullit yuy wootewu na ñoom ay sunnit piir lañ waaye ndeysaan tey boo vérifier seeni mbir seeni jëf seeni pas-pas da nga fekk loolu cheikh al islam ibnu taymiya di wax naan am na bokkaalekati démb yoo xam ne ñoo gën julliti tey waaw xam ngeen loolu wax ju garaaw la ay bokkaalekat démb ñu ne ñoo gën ay nit tey yuy woote woon ne ñoom ay jullit lañ ba pare ay mushriku na démb tane leen buñ laajee cheikh al islam aaya dalil la indi mu ne sunuy bokkaalekat tey xamuñu yàlla gaa yi doon bokkaale démb balaa ñu doon bokkaale rek du tar tar am tar tar ñii nag dañuy bokkaale ci lu yomb di dëkk di bokkaale tar tar ñële wa iza rakibu fil fulka da'awullah mukhlisina lahu diin kañ lañuy bokkaale falamma najjaahum ilal bar fa iza hum yushrikuun ñii nag dañuy bokkaale ci yombute di bokkaale bu méttee daanaka ñii mooy ñu xamul yàlla lii nag la yàlla di wax ahlul kitaab li ngeen di wax ne yéen yéen a nekk ci islaam yéen ay jullit yéen a gëm yàlla yéen a mel nii yéen a mel nii yàlla mu ne ku fekkee ne loolu ngeen di wax dëgg la daal dugg leen ci lislaam loolu dong mooy dëgg gi ñaareel bayaanu juhudul yahud wa nasara li kasirin min al ahkam alsharciya wa dalail annubuwa almuhammadiya mu ne borom bi tabaraka wa taala dinañ jàngal ci aaya yii di ñu leeralal weddi yahud yi ak nasaraan yi lu baree bari ci ay aaya ci ay ahkam ay atte yoo xam ne sharia moo ko yoonal waaye yahud yi ak nasaraan yi sànni ko fële da nga fekk sax dalil yonent bi ñu lay wan ne yonent injil lii la ci wax tawraat lii la ci wax waaye fëye lañ ko sànni lu tax makran wa xasadan ndax mbon ay pexe ak soxor iñaan hatta laa yumina naas bil islaam ndax ñoom yahudi suñu ne ah dëgg la de lii julli di di wax ñun gis nañ ko ci suñu téere kon luy xew mbokk yi tubaab yi na yahudi ak nasaraani suñu taxawee tey ne lislaam dëgg la yonent yàlla muhammad li muy wax dëgg la alquran bi dëgg la fekkoon nañ ko ci su- suñu téere kon luy xew ci àdduna bi kon àdduna bi yëpp dañuy nekk ay jullit ñëpp ay nekk ay jullit moo tax ñu indi ay pexe moo tax ñu dugal mbon ak iñaan ak soxor balaa nit ñi di dugg ci lislaam ah ñu daal di baare effacé fi yàlla di wax yonent bi def ay pexe pour bu kenn dugg ci lislaam li ëpp ci lislaam ñu yàqate ko dugg ci di weddi waaw tey fexe ba dugg ci biir jullit yi ker ya fi ay kuréel a ki tarixaa ki yoon ak i mbooloo fekk yoo xam ne boo koy càmbar di ko jàng da nga fekk lii cosaanu yahudi la kon loolu yàlla daf ñu koy jàngal ñu xam dëgg-dëgg yahudi yi dañoo weddi du yahudi kese ak nasaraan yi ngeen di gis dañoo weddi lu bare a bari ci ay àtte sharia weddi ay tegtal yu wane ne yonent dëgg la yàllaa ko yónni alquran bi waxu yàlla la dugal ci ay pexe ndax iñaan balaa nit ñi di dugg ci lislaam ñetteel mooy ittibaau sunna al muhammadiya yahdi saahibuhu ila saadatihi wa kamalihi mbokki julit yi ñun ñëpp nañu ànd xam ne topp sunna sunna yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahdi saahibuhu day jubal boroomam ila saada képp ku topp sunna yonent texe kon ku texewul yow la àddina bi tey ku fi texewul rek yow la lu tax ndax yoonu texe moom la yàlla jox yonent yahdi saahibuhu ila saadatihi wa kamalihi topp sunna li muy jubal jullit mooy day tax jullit bi texe day tax jullit bi mat lu tax ndax sunna moo leeral alquran ndax sunna ki ko jàngale mooy yonent yàlla muhammad mooy ku mat ki ku def lu mat yow mi topp kooku da ngay mat moo tax ki gën a tuuti ci ahlu sunna su fekkoon dagan naa wax soo ko boolee ak ay kàngam yu jàng laa la wax ba teeral addina bi fekk xamuñu sunna ki jàngul sunna sax daf leen di daaneel ki jàngul sunna laa wax te di ko dund rek nga xam ne moom day gis nit ñi def mu def muy dem di déglu di góorgóorlu soo ko boolee woon ak ñu jàng diine te du sunna ñooñu duñu wax wala dañuy wax ba sonn benn tontu lay tontu rek ñoom ñëpp ñu këpp parce que sunna dafa am fu mu wéeru fi mu wéeru mooy ci yonent alayhi salaatu wasalaam yonent ay waxam ak ay jëfam képp ku koy dund rek jeex na fan nga jëm mooy da ngay texe fan nga jëm mooy da ngay mat julli yu bari nag tey loolu la ñuy wax ñun ay sunnit lañ nangam ak nangam waaye boo càmbaree seeni jëf ak seeni wax fekk yéeféer yi saxaleen gën mbokk yi ñeenteel mooy alquran hujja ala nnaasi kaffa li bayaanihi lhaq fi kulli shay tey danañ jàng ne alquran bi nekk sunu kanam téere bi ñu teg ci sunuy loxo lay la pour nit ñëpp hujja ala nnaas mbokk yi du nu texe ëllëg mënuñoo am lay ci kanamu yàlla ginnaaw alquran suba yàlla alquran la ñuy àttee moo tax alquran ñu ne aw dundin la constitution ab jullit la xam nga jullit ñi tey dañoo sànni seen constitution topp ay sàmbaag dembaag yu kenn xamul topp topp topp topp alquran bi nag mooy lay pour ñoom ëllëg ku yàlla di àtte ci téere bi lañ lay àttee loolu bu yeboo ñu xam ko xujja la ala naasi kaffa lay la pour nit ñëpp lu tax li bayaanihi l xaq fi kulli shay ndax lépp alquran da koo leeral ndax am na lu alxuraan bàyyi yàlla nee na maa farat na fil kitaabi min shay téere bi bàyyiwuma ci dara téere bi bàyyiwuma ci dara dara dara benn waay dafa gis benn aaya inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla lépp la mën mu bu ko weddi mu gàddu am nen ñëw ci benn borom xam-xam ne ko dama jàng benn aaya ci téere bi mu ne ko ban aaya la mu ne inna allaha ala kulli shay'in qadir mu ne waaw mu ne waaye de gëmuma ko mu ne lu tax gëmoo ko mu ne dama ko gëmul rek leen dong mooy tax ma gëm ko mu ne lan mu ne nen bi ma yore mu ne waaw mu ne yàlla jël àddina bi dugal ci dugal ko ci nen bi te bu mu ko toj loolu su amee rek ma gëm inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla mën na lépp waa ji ne ko loolu nga wax de wax dëgg yàlla yàlla def na lu ko gën a yomb yàlla jël na lu ëpp àdduna bi jël na àdduna bi dugal ko ci lu gën a tuuti nen te toju ko kon yàlla moomu jël àdduna bi dugal ko ci nen te toju ko dugal ko ci lu gën a tuuti nen te toju ko kon mën naa jël àdduna bi dugal ko ci nen te du ko toj mu ne ko lan la yàlla jël mu toll ne àdduna mu dugal ko ci lu gën a tuuti nen te toju ko mu ne ko yàlla jël na àddina bi dugal ko ci sa biir bët yi te tojul bët bi mu ne loolu nu mu nekkee mu ne ah loo xool du yaa ngi koy gis mu ne waaw mu ne bu ci dugal woon doo ko gis te yàlla dugal na ko ci te toju ko kon yàlla moom mën na ko dugal ci nen bi loolu mooy wane kee daa jàng wala alxuraan moo bayaan lépp la leeral bayaan bayaan lépp abu darda nee na yonent alayhi salaatu wasalaam bàyyiwuñu lu dul picc mu sab fii sax yonent wax na picc lu mu wax balaa muy génn àdduna jàngal nañu ba jàngal ñu ni ñuy duggee ci biir duus suñuy génn ni ñuy génne ndax yaakaar ngeen yéen di nekk fii ci biir jàkka ci am na benn masala ci suñu dund bu ñu war a def te islaam waxu ci wax leen ma ko naa tàmbalee ndeyjoor fii ba ba ma yegg si waat càmmoñ ndax jàpp ngeen ne am na lenn lu islaam waxul ci sa dund li nga war a def am na lu la islaam bàyyee loo xam ne fii kenn waxu la nga def dara diina ji daa wax ba wax suñuy dugg ci biir duus bi diina ji wax ba suñuy soxna ñu nag suñu soxna ci kaw lal yi diina ji topp ñu ba buñ ñuy dugal bàmmeel ba buñ ñuy dekkil ci ñuy taxaw ci kanam yàlla lépp yàlla daf ñu wax lii lii lii mooy xew lii lii mooy xew amul lenn lu nu bàyyi ngeen defe ne diina ji topp doomu aadama boobu dina ko bàyyi nii kon ci àddina bi muy pëllëx pëllëx yi xamul dara déedéet kon li fi nekk mooy dañoo xam lànk wala ñu réer gëlëm wala ñu féetéerlu loolu rek moo fi nekk alquran lay la pour nit ñëpp ndax lépp la leeral bayaan alxaq alquran dafa leeral dëgg gi fii kulli shay'in ci lépp lu mu mën a doon alquran leeral na ko mbokk yi ci lépp nag laa wax lépp lépp lépp amul lenn lu nuy xalaat lu alxuraan wax na ci ndeysaan juróomeel taalibu ridallah bi sidqin yafuuzu bi kulli xayr wa yanju min kulli dar képp kuy ut ngërëmal yàlla su fekkee yow li la tax a jóg mooy yàlla kontaan ci yow kese da ngay texe loolooy li tuuti nag tey loolooy li néew nit di jóg dara taxul muy def muy wax wala muy jëf wala muy bàyyi soo ko ne yow li ngay def nii loo ci jublu mu ne pour yàlla kontaan képp kuy def loolu yow texe nga nit munta ut ngërëmal yàlla ut kontaante yàlla ba pare di alku mënul nekk te loolu dafa war a yitteel jullit ngërëmal yàlla lii may def na yàlla rek tax naa ci am ngërëmal yàlla su ma ci noppee am yàlla ma arrêté ko imaam ali radiallahu anhu wa ardaahu da doon xeex ak benn yéefér bi mu ko daanelee mu jël jaasi bi ne day dagg baatu waa ji rek waa ji tufli ko bi ko waa ji tuflee mu téye jaas yi daal di fomp tuflit bi xool loxo bi gis tuflit bi tax mu xool waa ji waa ji tëdd mu daal di koy wàcc fekk ci dënn waa ji la toogoon bi mu wàccee rek saxaaba yi yuuxu ndax ñu ngi doon xaar mu rey ko mu dox ba yegsi ci ñoom ñu ne ko waaw lu tax waa ji lu tax reyoo ko mu ne leen bu ma ko reyee dootul nekk ngir yàlla ndax bi ma koy bëgg a rey daf maa tufli te bi ma tuflee gisatuma woon yàlla tufli bi laa gis te bëgguma koo rey ngir tuflit yàlla rek moo tax ma bëgg ko rey ma kon jullit bi lépp lu muy def mbokk yi na taxaw xool waaw man lu tax may dem dars ndax ma am ngërëmal yàlla waaw man mi def dars bi lu tax may def dars pour ma am ngërëmal yàlla man mi dem jàkk di julli ji lu tax may dem pour ma am ngërëmal yàlla man mi di def sàngam bi lu tax ma koy def pour ma am ngërëmal yàlla su fekkente ne lii ngay def utoo ci yàlla kontaan jaratu ko ndax yaram buy metti nga ciy jële moo tax mu ne taalibu ridallah bi sidq kuy ut kontaan te yàlla ci dëgg kooku day texe yafuuzu bi kulli xayr waaye wa yanju min kulli dayr képp kuy def loolu da ngay mucc ci bépp musiba fekkee yàlla rek a tax nga jóg wallahi ci jàmm rek ngay nekk léeg-léeg doomu aadama yi tamit gëlëm gis kuy def ngir yàlla ñu tëj ko kaso wala ñu rey ko wala mu feebar wala am natt bu dal ci kawam nga dégg ñi gàtt ñooñu nekk ca histoire Qaaruuna ñi nga xam ne ñoom ndeysaan xamuñu xam nga ñu gisoon Qaaruuna yor ay milliards ay milliards ñu gis Qaaruuna di zibilé toog ci piliyaanu or sol yérey or mbax ne or dàll or lépp or ñu koy wëral dëkk bi muy romb nit ñi ñi nga xam ne ñoom ndeysaan àdduna rek lañ bëggoon biñ gisee xaaru na ak ak rafetaay boobu lu ñu wax ñooñu lu ñu wax mbokk yi ah allahu ak dañu ne ay ak a neexoon ak a neexoon ñu am lu xaaru na am xoolal àdduna rek lañ bëgg léeg-léeg tamit doomu aadama bi gis dégg koo xam ne ay wiram yëpp day ut yëfu yàlla nattu dal ko nga dégg gaay daal ñaw xamoon na ko de ndax moo ko waxee nii munoon na ko waxee nii munoon na teggi tànk munoon na bañ a dem munoon na munoon na munoon na déedéet da ngeen di yaakaar ne ku ut ngërëmal yàlla nattu mun laa dal ah yonent yi ñaata yonent lañ rey xam ngeen ko xam ngeen ñaata yonent la banu Israël rey est ce xam ngeen ko kenn mënu ko wàññi est ce que yonent yooyu dañoo amul dañoo amul ngërëmal yàlla dañoo échec ñaata borom xam-xam lañu rey ci adduna bi ñaata lañ tëj ñaata ñoo am ay nattu kon ndeke ci nattu yooyu sax nag ngay amee ngërëmal yàlla Ibrahima balaa muy nekk xaritu yàlla fan la yàlla jaar ak moom balaa yàlla wax wattaxaza allahu Ibrahima xalil yàlla dafa ne wa isibtala ibrahim rabbuhu bi kalimat fa atammahunna qala inni jailuka linnas imam wala yàlla di nat di di taral ibrahima ay garaat def ko imam def ko xarit def ko abul anbiya def ko def ko yàlla def koo nattu ba pare wa isibtala la yàlla wax al ibtila mooy lan yéen ñi jàng arab mooy nattu yàlla nee na ba ma ko nattoo fa atammahunna mu matal nattu ba yàlla nattu na ko ba reyloo ko doomam reyal sa doom waaw mu yeewu ne doom ji ya bunayya inni ara fi lmanami anni asbahuka fanzur maza tara kon ndeke balaa ngay am ngërëmal yàlla fu nga dëggu fa nga jaar ci yoon bi fa nga sàkku ko waaye soo ko amee texe nga mucc nga ci lépp nag ci lépp kon mbokk yi ci tënk bu gaaw ñaari aaya yi nekk sunu kanam lool lañ ciy jëlee ci ay njàng أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم sunu borom ne yaa ahlal kitaab ey yéen ñooñu téere yàgg nañ leen wax ñooñ ñooy ñan mooy yahuud ak nasaara yaa ahlal kitaab huna hum al yahuud wa nasaara maan mu ne fii yàlla di wax ñii mooy yahuud yi ak nasaraan yi ahlal kitaab lan moo tax yàlla tuddee leen ahlul kitaab parce que dafa wàcce woon ci ñoom ay téere ñii daf leen joxoon tawraat ñii mu jox leen injil mooy yahud ak nasaara yàlla woowee leen ee yéen ñooñu téere yéen ñi nga xam ne ay téere lañ wàcce ci yéen waaw yàlla wax leen loolu pour leeralal leen ne ci ay caaxaan rek lañ nekk ndax ñoom message bi yegsi na ci ñoom ba pare muy kitaab bi téere yooyu ñu leen jox wax dëgg yàlla ñu jàng ko ay yonent wàcc ci ñoom waaye comme ay saay-saay lañ comme lu lëndëm lañ bëgg bëgguñu lu leer dañ koo teg fële wax leneen moo tax yàlla wax leen ne leen yéen ñi nga xam ne message bi yeggoon na ci yéen ngeen nekk les gens des livres yaa ahlal kitaab yéen de dëgg-dëgg qad jaakum ñëwoon na ci yéen dikke woon na leen qad ca dëgg-dëgg jaakum ñëwoon na ci yéen rasuluna sunu yonent sama yonent ñëwoon na ci yéen muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam indi leen lay wu leer wu ne weng ngeen xam ko muy lu wóor parce que lii muy wax mi ngi ci seen téere yi lii mu leen di jàngal xam ngeen ko waaw naka ngeen di jotee lu leer ba pare daal ciy teg seen tànk da ngay dégg alxuraan sax yenn saa yi ne leen yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum yonent bi niñ ko xamee moo raw ni ñu xamee seeni doom ndeysaan am na ci kenn koo xam ne dane dëgg-dëgg sax man di Muhammad laa gën a wóolu ak sama doom ji maa ko jur ndax kii jàng nañ ci téere yi ne yàllaa ko yónni nii lay mel lii mooy ay melokaanam waaye sama doom ji sama jabar moo ma ne yaay bàyyam rek ma nangu te loolu ñun ñëpp la kat ku nekk da nga am yaakaar rek ne sa doom ji yaa ko jur est-ce que wóor na la wóoru la di xamoo ci dara ku la ne sa doom sa soxna si bi mu la taagoo dem marché am na ku mu fa joteel wala bi nga xëyee liggéey am na ku fi ñëw wóoru li ngay ngénte di jënd ay kuy benn jigéen woo na ma téléphone ne ma dañ ma bëggoon may benn waay ku ma bëggoon ñu lànk ne duñ ma ko may ñu forcé ma keneen ma sëy ak moom am nañ ñetti doom waaye ñetti doom yëpp kiñ ma bañoon may moo leen jur léegi nan laay def ndax dama koy wax kii wala nu may def jigéen wax na ma loolu téléphone sama nopp bi mu ne ma li ma wóor wóor yàlla ne doom yii ma ne ko ah mu ne ma kii ma nekkal juru leen de kii ma bëggoon ñu bañ ma ko may moo jur ñett ñëpp est-ce que waa jee xam na loolu moom gis nga gis nga voilà kon nag ahlu kitaab ñoom yaarifuunahu xam nañ yonent bi lu raw lu ñu xamee seeni doom bal sax leer na leen ne yonent bi yàllaa ko yónni waaye seen doom yi wóoru leen ndax ñoo ko jur waaw moo tax yàlla ne leen qad jaakum ñëw na ci yéen bàyyeekoo ci seen borom ya ahlal kitaab sama yonent rasuluna muhammad waaw yow ci yéen kay indi lu weex lu weng lu leer nañ yu bayyinu lakum moom yenentu boobu ñëw di leen leeralal kasiiran lu bari mimma kuntum tuxfuuna ca la ngeen nekkoon di ko nëbb li moo tax bëgguñu yonent bi sa waay bu ñu leen ne benn waay bi nga xam ne li nga nëbb yëpp daf koy génne ndax di nga kontaan ci waa jooju foog nga bañ ko foog mu nekk sa noonu soo ko gisee rek sa bët yi commencé changé sa xol bi commencé tàng parce que xam nga ne kii say pexe yëpp dina ko dindi moo tax ahlul kitaab mënuñoo bëgg yonent yàlla muhammad lu tax mënuñu ko bëgg mooy yàlla moo ko wax moo ngi nii qad jaakum ñëw la ci yéen rusuluna sama ndaw sama yonent boo xam ne maa ko tànn yónni ko ci yéen lu tax mu ñëw mooy yu bayyinu lakum daf leen di leeralal kathiran lu bari mimma kuntum ca la ngeen nekkoon tuxfuuna di ko nëbb minal kitaabi ci téere bi waaw tawraat ak injil li ngeen doon nëbb mooy atte yi yàlla li la wax ah fu yàlla war a wax fagsilu faqta'u ñu ne fagsilu su yàlla leen lii dagan na ñu ne lii araam na yemuñ ci loolu waaye fu ñu gis màndarga yonent alayhi salaatu wasalaam ñu daal di koy effacé xam ngeen ne Isa bokkoon na ci message am mooy mu leeralal yahud yi ne leen am na yonent buy ñëw sama ginnaaw ismuhu ahmad yàlla nee na fa lamma jaahum bil bayinaati qaalu haza sihrun mubin kon yàlla yónni yonent yàlla muhammad mu ñëw di leeral li yahud yi nëbb li ñu di dindi ci seen téere yi li ñu ci yokk li ñu ci wàññi ak li ñu nëbb wa maa yuxfuunahu min sifaati nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa baadul ahkaam al muxaalifiina laha melokaanu yonent dañ koo dindi yenn àtte yi dañ koo dindi ndax weddi ndax dëgër bopp ndax mbon moo tax kenn gënta bon alul kitaab moo tax su fekkoon ne dégg nañ alxuraan jàng ko kon du ñu am problème ndax yàlla su xoolee ay nit ne ñii baaxuñu ñooñu ku leen bëgg a baaxal di nga bon su yàlla xoolee ay nit ne ñii jubuñu ñooñu ku yaakaar ne dañoo jub ba nga bëgg a xaritoog ñoom moo tax demee gis ngeen àddina bi li tax économique àdduna bi mënut a baax lu tax lu tax parce que yahudi ñoo ko yore système banque yi lu tax baaxul lu tax ah lan moo tax àdduna bi teguwul ci raay bu baax lu tax parce que yahuud yeeg nasaraan yi ñoo ko yore du baax xool leen lépp luy mbaax bëgguñu ko lan mooy sunanullah fil ard mooy yàlla moo sàkk góor sàkk jigéen wala yàlla mu ne góor ak jigéen nañ sëy yàlla utal ko yoon man góor laa kii jigéen la ñun ñaar dañoo war a bëggante dañoo war a sëy yàlla mu ne bu leen ko def dund njaay àll déedéet bu leen toog bëggante rek sànq ci Facebook bi rek damay seetaan ba egg ci benn image xam ngeen ne Europe bu ñu eggee ci période tàngaay ñëpp ay génn dem géej ah ndeysaan mais gi ci image boo xam ne waa ji mbooloo maa ngi toll ne stade waa ji di sëy xale bu jigéen bi mu àndal tubaab yi sax dañoo tiit naan oh my god di yuuxu di xaqataay ndax ñoom dañoo jommi xoolal nit kuy sëy ci biir mbooloo moomu bëccëg ah bëccëg ci diggu mbooloo même ñooñu nga xam ne gëmuñu yàlla sax dañoo ñoom ñoo ko doon filmer dañu doon yuuxu di tudd turu yàlla ndax dañoo jommi loolu mooy melokaanu tubaab su yàlla ne lii nii la ñu ne non non non ñun mun nañu def leneen lu gën a baax góor ak jigéen nañ sëy ñu ne déedéet góor ak góor seen digganteeg yàlla góor ak góor mun nañ sëy est-ce que rafet na est-ce que góor ak góor bu ñu sëy dund àdduna dina am avancement ah yàlla mu ne jigéen ak góor ñoom ñu ne non non ñaari jigéen mënuñu sëy loolu mun na nekk ah yàlla mu ne sàngara baaxul day yàq xel ñu ne non non non mu ne noonu naan yàlla mu ne nan sol ay yére pour nu nekk ay nit gaa ñi ne nañ def yaramu neen foo yegg si ñu ne ak a rafet ñu ne fas la jig fas fas moo dul sol yére fu mu yegg si ah gaa yi ne allahu akbar mais ku moom fas bi nga ni maa ko moom di yëkkati sa mbagg ñu ne ak a rafet est-ce que sol na tubéy ah wala xar bali bali ngay jël yar ko ba mu ngande sang ko ba mu weex tal ah nga bula ko takk ko buum ànd ak moom gaane ci ah mais gaa mais gaa ni jox ma kii waay mais kii rafet na di ah sol na tubéy wi leen ma léegi nag nag kenn ci ñun daal di simmee ko def yaram neen jaar ci mbedd mi quoi ñu takk ko buum allahu akbar ñu ne boo demoon sa kër rek yegg simmeeku ba ni la sa yaay jure woon nga génn naan asalaamaaleykum di i imaam lu ko jot la ñuy wax waaye oustaz lu ko jot ki am na lu mu gis de wala léegi nag ñu bëgg walal ñuy organiser miis ñu futti la ba nga set ñu ne rafet nga tukulóor yi nee nañ ko com ci yoon na te netto yére mooy rafetal nit ndeysaan moo tax yàlla bi mu nee aadama bi aadama ak awa lekkee garab ga yàlla mu ne seeni yére daa di naaw seen awra génn ñuy xëcc xobi garab yi aljanna di ko taf ci seeni awra mënatuñu rafet ndeysaan yàlla ne ma yéen doomu aadama yi maa leen wàcceel ay yére pour ngeen muur seen awra ak ay dunq bal sax yàlla dafa ne bu ngeen dem jàkk na ngeen sol sol yu rafet xuzu zinatakum inda kulli masjid kon yahud ak nasaraan seen programme mooy weddi diine weddi yontu yàlla moom lu tax parce que Mohammed dafa ñëw pour di leen dénoncer nit nag li ñu xam li nature doomu aadama mooy képp ku lay dénoncer doo ko bëgg jamais même bu doon sa doom la sax yaa ko jur fekk yow da ngaa dëng doom ji nekk sa ginnaaw loo bëgg def mu ne la ay pap ay ay da nga julli naan kii yàlla yàlla na dee rek ba ma mun a continuer sama projet yi rawatina nag ab yonent bu yàlla yónni boo xam ne lii mission mooy muy dénoncer yéen li ngeen nëbb ak li ngeen di yàq ak li ngeen di bëgg a lëndëmal ak fi ngeen bëgg a jaare la jaami yàlla yi te yàlla santaane wu ko yàlla mu ne moom yonent ñëw na di leen leeralal lu bare bari ca la ngeen nekkoon di ko nëbb ci téere ba muy injil ak tawraat waaye xoolal yàlla ak a baax sunu borom mu ne wa yaafu an kasir yàlla nee na li ma leen baal te Muhammad leeralu ko loolu kenn xamul nu mu toll wa yaafu an kasir li ma leen baal moo ëpp li Muhammad di leeral ni leen yàlla baale la nu yàlla di baale nun la yàlla baax moo tax ëllëg ku yàlla duma rek yow la duma du yàlla instant bii ñu toll nii di nga gis imaam yu bari bu ñuy xutba ñu dugal ci xadisu tawba surtout koor di ñëw ñu ne yàllaa ngi tàllal loxoom bëccëg pour ki doon tóob ki doon def bàkkaar guddi daal di tuub yàllaa ngi tàllal loxoom guddi ki doon def bàkkaar bëccëg tuub noonu la yàlla di nekkee hatta tatlu shams min maghribiha ba jant bi xëy fenk fii ci saw bi boobaak léegi yàllaa ngi tàllal ay loxoom pour ki def bàkkaar guddi tuub bëccëg ki def bàkkaar bëccëg tuub guddi noonu rek la yàlla def loxo yaa ngi tàlleeku pour ñu tuub kañ kañ kañ la ko dul nangooti buñ demee ba jant bi génn fii wala ñu ñëw ci sukuraat di waaj a dee beneen hadis bi ñu ne bal sax yàlla loxoom yooyu mu tàllal di woote ku tuub mi ngi ci boole naan yaa baaxi il xayri aqbil yow miy def lu baax ñëwal waaye ñëwal ñëwal foo toll génnal yow kii def lu bon arrêteel taxawal bal sax boroom xam-xam yi dañ lay waxaat ne yàlla ma nga ca pays yu sell ya ca arsh la yàlla nekk waaye guddi gu nekk moom yàlla dana bàyyeekoo ci barab yu sell yooyu wàcc ba sëcceem asamaan moo moom yàlla lu muy def asamaan lu mu fi ut naan kan moo may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may baalu ma baal ko kooku di def lii yëpp bu mbugalee nit ci moom la wala ci nit ka la ndeysaan xoolal rek mu ne laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba am na lu mbaay yeneen bi nee na say bàkkaar bu tolleen ne vague géej soo tuubee yàlla baal la waaw lu fi desati ndax fii ñu nekk nii am na ku fi ku fi amul bàkkaar yëkkati sa loxo ki amul bàkkaar fii ne yëkkati loxoom kon am nan waaw bu nu amee yàlla di nu woo kaay leen ma baal leen lu nu war kon bu nu ba bu nu demulee ba ëllëg nu dajeek yàlla kon lu nu def kan la kan ci ñun moo bëggul yàlla baal ko ñun ñun ñëpp bëgg nañ yàlla baal nu ñun ñëpp bëgg yàlla baal nu ñun ñëpp kan ci ñun moo soxlawul yërmal na yàlla ñun ñëpp soxla nañ ko kon nan leen daw dem ci yàlla surtout nag guddi yi ñu jëm ndeysaan démb xutbu jumaa bi ñu doon def mooy ramadan fursatu taxyir ramadan temps la pour changer xoolal yàlla mbaaxam gi mu baax jalla jalaaluhu mu gis doomu aadama jaamam bi bon def lu ko neex yàlla indil ko ay waxtu ay guddi ay heure yoo xam ne su ci jaamoo yàlla rek yàlla baal ko ay bis yoo xam ne li ngay tooñ tooñ yàlla bis yooyu bu ñëwee boo boo jaamoo yàlla rek yàlla baal la li ngay tooñ tooñ yàlla yàlla indi la ay guddi yoo xam ne boo ko ci jaamoo mu baal la li ngay tooñ tooñ tooñ yàlla indi la ay bis tegaleel la ko ne la boo ma fi jaamoo ma baal la terewul loolu yëpp da ngay gis koo xam ne ah man de wax dëgg yàlla saay munu maa woor de nee naa démb démb jumaa ji gars yi dañoo ree bay bëgg a dee wala waaye yéen seen jumaa ji ndax dina baax instant yi di nga gis gars yi commencé créer ay feebar ah yemuñ ci créer ay feebar rek créer ay tarixa di changer tarixa changer tarixa ah man sama waay man léegi kii laa de kii nag laa wax man kii li ci des yéen a koy yeggali kii laa la moo tax nga nekk kii parce que bëggoo woor sawaaye man temps yi kii laa de bu koor gi jeexee nga ne waa delluwaat naa fi ma nekkoon te yàlla woone ne la kaay ma yërëm la ngay changer pour bañ yàlla yërëm la kaay nga am sama jéggal pourtant bu Macky Sall woote woon tey ne fekk leen ma fale kan ci ñun fi toog ku dul dem fekk leen ma fale ma defar seen mbir danañ dem wala duñ dem wuy leen ma ah danañ dem même bu fekkoon ne oto amul sax danga ne gars yi xoolal nañ teel a yeewu ñu daje fële gis nga buñ jaaree corniche deux minutes booy raf taf lañ koy def tak tak egg ni ngeen ñëw gars yi waaw gars yi régler portable yi pourquoi parce que président moon woo ndax bi mu woowee barki démb Waly Seck jox na ko jox na ko cinquante millions ne ko demal biir si fooy moo tax képp kuy critiquer enseignant yi yaa ngi ci musiba cinquante millions lañ jox Waly Seck Waly Seck lan la liggéeyal Sénégal bañ koy jox cinquante millions wax leen ma ko c'est ça lii mooy Sénégal waaye nag ci màndarga yowmal xiyaam la nekk lañ dal de yonent waxoon na ko jamono bi ñi bon rek la ñuy teral ñi bon képp ku ngeen gis ñu recevoir ko palais ñi ci ëpp di leen jox xaalisu réew mi ñu bon lañ sàngara lañ koy def yi góor jigéen lañ koy joxe ji non yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla dimbali réew mi fi mu jaar baaxul te du mus a baax waaw réew moo xam ne lu bon la ñuy encourager lu bon kenn du encourager lu baax ñiy def lu baax dañ leen di xeex di leen tëjëg di leen tam dëmm da ngeen mag Sall li mu leen wax nee na seen tube yu gàtt yii seen sikkim yu gudd yii seen loxo yi ngeen di teg seen dënn yi xawma lu ngeen di def nii ngeen ñaan da ngeen ñuy coloniser ñun kenn duñu coloniser deux fois ah président moo ko wax de bu fekkee waxuma ko waxu ko wax leen damay wax leen wax leen ma da ngay fen moo ko wax tubéy yu gàtt yii wax leen président tubéy yu gàtt yii yonent bee ko gàttal du ñun wax leen président sikkim yii yonent moo ne nan ko fi bàyyi wax leen président xabdu yi ñuy def ci sunu dënd yi pré yonent bee ko wax wax leen ko ko yéen ko ko wax wax leen ko yonent bi moo ne sallu kama raaytumuni usalli wax leen ko yonent bi moo ne tube yi na gàtt wax leen ko ne sikkim yi yonent bi moo ne waaful liha bàyyi leen ma fi sikkim yi sikkim yi ndigalu yonent bi moo ko fi bàyyi su ko yonent bi waxul woon gor nañ ko bu yàgg wala ñu oo ko rafet ni ñëpp rafete waaye yonent bi mu ne bàyyi leen mu ko fi ñu bàyyi ko fi ngir moom suñu dajeeg moom yowmal xiyaam ne ko li nga waxoon ñu bàyyi ko fi mi ngi nii moo ko wax waaful lihaa la wax wala waxu ko jeex na mbokk yi yàlla nee na li ma leen baal moo ëpp wa yaafu an kasiir li ma leen baal moo ëpp qad jaakum ñëw na ci yéen yéen jullit yi min allahi mu bàyyee ko ci yàlla nuurun leer allahu akbar qad jaakum min allahi nuur xam ngeen leer googu lan la alquran wala muhammad moo tax xeet wi war nañ xoolaat seen bopp xad jaakum ca dëgg-dëgg ñëw na ci yéen loo xam ne bi muy ñëw min allah ci yàlla la bàyyeekoo bàyyeekul ci ma sàmm bàyyeekul ci ma dem bàyyeekul ci maamu kenn min allah loolu lan la yàlla mu ne nuurun leer leer boo xam ne wa kitaabu mubiin ak téere bu biir yàlla wàcceel nanu yonent muy leer moom yàlla leer la allahu nuuru samawati wal ard yonent yàlla muhammad leer la qad jaakum min allahi nuur alquran leer na wala ah wala yàlla wax na alquran leer la déedéet baatu nuur kay laa soxla te am na ci saar yu ndaw yi saar yu ndaw yii fii diggante xarsami ak kii am na fa wa anzalna ilaykum nuuram mubin yàlla nekk leer di sunu borom sunu yonent nekk leer di muhammad sunu téere di leer di alquran umma bi nekk ci lëndëm ah déggu leen de yàlla leer la yonent bi leer la téere bi ñu war a dund leer la ñun xeet wi ñu nekk ci lëndëm kon xamuñu li ñu yor pourquoi ñu nekk ñu ci leer c'est parce que nanguwuñu li yàlla jox ti muy leer qad jaakum min allahi nuurun mbokk yi kenn ci ñun bu nekkoon trois heures du matin ci lëndëm boo xam ne weer génnul biddéew génnul courant amul amul sondel amul lu tàkk lëndëm na wala lëndëmul ñu jox la torche ñu ne la doxi ko ci yoon wi ndax nga gis nga lànk loola dal ku ko ku la ko teg ah yàlla sax chaque jour bu waxee ne man yàlla subhanahu wa taala maa leen jox alquran wala maa leen yónnee yenent day wax pour mu génne leen ci lëndëm yi ngeen nekk kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaas min azulumat ila nuur yàlla daf ñu yónni moom leer la moom yàlla alquran leer la seydina muhammad leer la yàlla yónnee ñu pour ñu génn ci lëndëm jëm ci leer ñu lànk di topp ay caaxaan ay sàmbaak démbaak topp lu kenn xamut moo tax duñ nekk ci leer ci lëndëm dong la ñuy nekk ak ku ñu mën a topp ku mu mën a doon waxuma sax ñu topp ay tariixa bu ñu mën a topp te du tariix muhammad ci lëndëm la ñuy nekk ndax tariixa woowu amul assurance yoon woowu amul assurance benn tariixa dong la yàlla assuré mooy tariixa muhammad moom dong la yàlla joxoñ ci alxuraan benn baaraam ne wa in tuti uhu tahtadu mu ngi nii su ngeen ko toppee rek jub moom kenn wala am na keneen benn damir la wa in sart la ñu jàng arab sart mooy lii bu ngeen ko defee ñu ne ah mu ne ngeen am lii wa in tuti uhu muhammad a ngi nii su ngeen ko toppee ñu ne ah mu ne tahtadu ngeen jub kon buñ ko toppul du jub moo tax jubunu kon ne kaay topp muhammad mu bañ bal sax léegi dañuy critiquer lu toll ne président de la république mooy critiquer lu Muhammad indi waaw ndeysaan benn président bu mu tooñee benn sëriñ ci dëkk bu ñuy wax Égypte président bi def discours comme sunu waa ji daal di tooñ boroom xam-xam boobu boroom xam-xam bi daal di koy ñaan yàlla te kooku moom yàlla defoon na ko lu mu ñaan rek yàlla may ko ko loolu la ko yàlla mayoon ci dundam lu mu ñaan rek mu am président bi mu yégee ne boroom xam-xam boobu ñaan na ko yàlla mu yónnee délégation ne dem leen ngeen ne ko na ma baal dama doon fo rek ndeysaan bi gaa yegsee ci boroom xam-xam bi boroom xam-xam bi ne leen ah moom day moo doon président bi yàllaa ko teg sunu kanam pour ñun bu amee ku ñu tooñ ñu ñëw ci moom mu régleel nu ko moom mi war a régler tooñ ñi nag moonu tooñ ñu boole ko ki ko fi teg ne ko régleel nu ko comme moom moonu ëpp doole tooñ ñu ñun tamit ñu dem ci ki ko ëpp doole kalaame ko gaa yi ne ko waa léegi nee na nga baal ko mu ne lettre bi posté naa ko démb ci guddi daañu ne ko bonne heure mu ne leen diggante 4 heures ak 5 heures ñu ne ko noo ko posté mu ne bi ma sujjootee ci ban waxtu mu ne bi ma doon jaamu sama borom bi ma sujjootee laa laa sànni lettre bi mu dem laa ñaan yàlla. mënatuma jëli lettre bi parce que dem na waaw yàlla nee na duwaawu duwaawul mazlum mustajab ñaanu ko ñu tooñ buy ñaan yàlla di ko nangu moo tax kenn warul nekk ci sa mbooloo ñu takkal lay rajo nga xool say garde xool sa doole xool di tooñ billahi wallahi taala ku bàyyiwul ci ñun tooñ ndax sa mbooloo wala say mbokk wala sa alal wala wala wala ngay tooñ jàngoon ngeen ci xissa ba am na waaju daan jaar ci mbodd yi naan yaa man yaraani fala tasliman na ahad e yow mi may gis bul tooñati kenn loolu xut boowoon nañ ci juma wala ah yaa man yaraani la tasliman na ahad e yow mi may gis bul tooñati kenn laaj leen kooku lu mu defoon ba mu jaral ko muy génn ci mbedd yi naan yow mi may gis bul tooñati kenn mbokk yi tooñ baaxul de te ab jullit du tooñ borom bi nee na li ma leen indil de leer la waaye wa kitaabun mubiin téere bu biir muy alquran an nuur muhammad wal kitaab alquran nee na leer gi yàlla wax mooy muhammad téere bi mooy alquran téere boobu ak leer googu yahdi bihi llah man ittaba ridwanahu yàlla dina jubal ci ñaar yooyu wala benn ci ñoom ñaar yahdi bihi llah ci ñoom ñaar ñooñu la yàlla di jubale man ittaba képp ku topp ridwanahu ngërëmam kon bu nu bëggee am ngërëmal yàlla lu ñuy topp mbokk yi lu ñuy topp téere bi lu ñuy topp muhammad ku bëgg am ngërëmal yàlla leer na gis nga dof dof loo fi des ak ak di def lu la neex ak ak say intérêt mais mbir mi wallahi leer na amul lu fi lëndëm fii dara soriwu fi téere baa ngi nii sunuy loxo yahdi bihillaa yàlla dina jubale ci téere boobu man képp koo xam ne ittaba dafa topp ridwaanahu ngërëmal yàlla subula salaami mu daal di jaar ci yoonu yoonu lislaam jeex na subula yoon woo xam ne assalaam mooy yoonu jàmm mooy islaam islaam diiney jàmm la boo waxee gaa yi ngi ne islaam terrorisme la wallahi islaam diiney jàmm la gaa yi bu ngeen di nuyu nit ñi lu ngeen leen di wax assalaamu aleykum sooy fay nuyoo looy wax wa iza xaatabahumul jaahiluun qaalu salaaman même yàlla nee na sax booy wax ak ñu réer ñi bu ñuy wax ak yow di la jéem a indil problème waxal jàmm salaam aljanna sax yàlla nu mu ko tuddee daaru salaam kërub jàmm moom yàlla ci boppam mooy borom jàmm looy wax allahumma anta salaam wa minka salaam wa ilayka yaudu salaam wa hayyina rabbana bisalaam wa adxilna aljanna daaraka daarak salaam hatta aljanna kërub jàmm la yàlla bëggul ay waaw moo tax mu yónnee ñu diiney jàmm su ñu tuddee islam terrorisme rek wala ñu tuddee ko leneen wala ñu tuddee ko leneen dañoo jàngul diine waaw dañoo jàngul diine l'islam mu ngoog suñu borom nee na wa yuxrijuhum téere bi ñëw na pour génne leen yonant boobu ñëw na pour génne leen mina zulumaat ci lëndëm yi jàmm la de waaye xoola ilan nuur ci yóbbu leen ci leer benn la fu yàlla wax lëndëm rek jamu lay indi fu mu wax leer benn lay indi xam ngeen lu tax yàlla buy wax zulumaat mu wax mu def ko jam xam ngeen lu tax bokkaale lan la ah bidaa lan la njaaloo lan la sàngara lan la san lan la wuruj lan la xam nga dafa bëri moo tax yàlla ne zulumaat yooyu yëpp lëndëm la téere bi ñëw pour génne ñi ci lëndëm googu lépp lu dul islam rek lëndëm la capitalisme libéralisme ah indi leen communisme indi leen yëpp lëndëm la dara baaxu ci socialiste yi jaar nañ Sénégal ndax baax na tontu leen ma de socialiste yi jaar nañ Sénégal baax na libéralisme yi jaar nañ fi baax na ñi fi nekk lan lañ ay républicain baax na du baax de du baax de xam ngeen lu tax du baax ndax du programme boobu la yàlla wax mooy baaxal mbir mi ban programme mooy baaxal mbir mi bii bii bi yàlla jox ñu bii nii li yuxrijahum min azulumaati ila nuur programme boo xam ne moo nuy génne ci lëndëm yóbbu ñu ci leer ndax libéralisme day tere sàngara day tere njaaloo day tere riba day tere fen day tere sàcc day tere wuruj socialisme kazalik ndax day tere loolu lu ko tere moo tax du baax xoola ki bi nga defar réew mi ba pare nee na waa fen de dara nekku ci dégg naa tey benn waaye ci rajo benn rajo muy critiquer président assemblée nationale ndax nee na dafa fen peuple bi waaw bu fekkee président assemblée nationale day fen ah te mooy deuxième personnalité de l'état kon fu dëkk bi jëm dëkk bi du baax su fekkee loolu waa ji wax dëgg la autorité yuy fen kon njaboot gi ni ñuy def yàlla nee na alxuraan dafa ñëw pour génne leen ci lëndëm waaye yóbbu leen ci leer bi isnihi ci ndigalam moom yàlla yemu ci waaye wa yahdihim mu leen di jubal ila siratim mustaqim ci yoon wu jub wu ne xoj ni islaam baat bii di siratal mustaqim mbokk yi bu ngeen di julli suba ñaata yoon ngeen koy jàng bu ngeen di julli suba ñaari yoon bu ngeen di julli tisbaar bu leen ci yokk sunna yi de farata yi rek laay laay bu ngeen di julli takusaan muy ñaata bii diis bu ngeen di julli timis muy ñaata bu ngeen di julli gee muy ñaata ah fukk ak juróom-ñaari yoon di nga taxaw ci kanam yàlla naan ko ihdina siratal mustaqim te munoo jub yàlla yàlla nag ma teg ci yoon bu jub bi te joo jub est-ce que kon wax bi dëggu na juróomi at ngaa ngi julli fukki at yaa ngi julli fukki at ak juróom yaa ngi julli yaa ngi wax yàlla ihdina siratal mustaqim yow yàlla yàlla nag ma teg ci yoon bu jub bi te juboo fu ñu la fekk yaa ngi fen yaa ngi wuruj yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi te bis bu ne nga taxaw ci kanam yàlla ne ko yàlla yàlla teg maa jubal te juboo est-ce que kon li ngay def dëgg la kon ku nekk war a xoolaat baat bi ihdina sirata almustaqim te yàlla loolu rek la am de wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu benn yoon boobu rek la te yàlla nee na yoon boobu xam ngeen kan moo fay jubalaate mooy muhammad wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam dong dong dong mooy ki yàlla yónni pour mu ñuy jubal ci yoon woowule kon mbokki jullit yi suñu bëggee jub bu ñu bëggee am ngërëmal yàlla ak kontanteem jaar ci yoonu yonent yàlla muhammad mooy fokk fokk fokk fokk fokk fokk rek ñu bàyyi xel li ñu alxuraan di jàngal ñu bàyyi xel sunu bopp bàyyi xel sunu diine kon loolu mooy darsi tey asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su amee ay njuum te ñu ngi koy jéggalu sunu borom yal nañu ko yàlla jéggal yaakaar naa tey mooy jour bu mujj bu ñuy tafsir samedi